kii jàng nag na seetlu ne min hunna anna liqaaha dañ ko firee anna liqaaha naka taseeg àjjana maanaam bokku na ci nga ne li dee bala ngaa dem àjjana dangaa dee rek mënoo dem àjjana te deewoo bu fekkee ne xasida la woon gisulu la jiitu ñaari bay di dañ ko waxe noonu rek xëy na buñ gisaatee fa yaar yooyu nekk mën a wóorlu ba xam am na liqaaha fu delloo xew boobu faslun li ab dog la fii axwaalil jannati ci mbiri àjjana waru ye net leef na ne ànna ulal jinaani naka aji jëkki àjjana ya min lulu in mi ngi tukkee ci wurus lulu ab yaddaw yi aji weex wa yuqaal def na wax laxaa ñeel ko daaru salaam wa taaniyatuha aji ñaari la min yaaquutin mu ngi bàyyi ko ci wurusu yaaquut ahmara wi aju xong wa yuqaal def na wax laxaa ñeel ko daarul jalaal wa taalisatuha aj ñetteel seen min zabarjadin mi ngi bàyyi ko ci zabarjat ax dara bi aji wert wa yuqaal def na wax laxaa ñeel ko jannatul ma'wa wa raabihatuha aj ñeenteel seen min marjaan mi ngi bàyyi ko ci wurusu marjaan asfara wi aji gel may wu puur wa yuqaal def na wax laxaa ñel ko jannatul xuld wa xaamisatuha ak juróom-mel seen min fiddatin mi ngi tukkee ci xaalis bayda buy aji weex wa yuqaal def na wax laxaa ñel ko jannatu naayim wa saadi satuha ak juróom-benn seen min dahabin mi ngi bàyyi ko ci wurus ahmara wi aji xong wa yuqaal def na wax laxaa ñel ko jannatul firdaws wa saabixatuha ak juróom-ñaari seen min durrat mi ngi bàyyi ko ci wurusu dóoru baydaa awi aji weex wa yuqaal def na wax laxaa ñel ko jannatu xadunin wa thaminatuha aji juróom-ñetteel ci xaalis baydaa weex wa def na wax laxaa ñel ko daarul qaraar moom nag daarul qaraar mushrifatun mooy aji tiim xalal jinaani ci àjjana ya kullihaa mbooli seen wala xaata ñeel na ko baabaani ñaari bunt wa misraxaan ak ñaari bato misraxun ab bato min dahabin bu bokk ci wurus maanaam bu bàyyikoo ci wurus wa misrahun akub bato min fiddatin bu tukkee ci xaalis wa kullu misrahin bépp bato baynahoo nekk na digganteem wa baynal aaxari ak diggante ba ca des kama lu toll ne li nga xam ne bayna samaay nekk na diggante asamaan wal ardi ak suuf day wax nag mbiri àjjana mu ne àjjana bu jëkk bi su borom da ko liggéey ci wurus loolu weex ñu koy tuddee daaru salaam ajjana ñaareel bi su borom liggéeyee ko ci wuruf yaaxoon wu xong ñu koy tuddee daarul jalaal ajjana ñetteel suñu borom liggéeyee ko ci defaree ko ci zabarjat bu werat ñu koy wax jannatul mawa ajjana ñeenteel ji suñu borom defaree ko ci wurus marjaan wu puur ñu koy tuddee jannatul xuld ajjana juróomeel suñu borom defaree ko ci xaalis bu weex tàll ñu koy tuddee jànnatu naayem juróom benneelu àjjana yi suñu borom defaree ko ci wurus wu xong cooy ñu koy tuddee jannatul firdaws àjjana juróom ñaareel suñu borom liggéey ko ci wurusu dur wu weex tàll ñu koy tuddee jànnatu àdduna juróom ñetteelu àjjana nag moom suñu borom ñu ko defaree ci xaalis bu weex ba tey ñu koy tuddee daarul xaraar mu ne moom nag moo tiim mboolem àjjana yi am na ñaari buntu bunt bi ubbi ko ci ñaari bato te diggante bateau bu ne ak moroom ma toll na ne diggante asamaan ak suuf bateau bee doon wurus bee doon xaalis ci ni mu andee fii daa mel ne daarul xaraar mboolem àjjana yi moo ci féete kaw te daa mel ne ci yeneen téere yi dañuy indi addis di wax ne alfirdaws mooy àjjana ji nga xam ne moo féete kaw ci mboolem àjjana yi ñu xoolaat ba xam loolu nu mu demee wa ama binaa uha fa labinatun ab mbool la maanaam ab min dahabin bàyyi ko ci wurus wa labinatun akub mool wala ab demblan min fiddatin tukkee ci xaalis watiinuha banam ba waturaabuha ak suufam sa alxambaru mooy xambar wa xashiishuha te ñaxam ma az zanfaraanu mooy zanfaraan wa qusuuruha te ay paleem al lu'lu moo di wurusu lu'lu wa xurafuha te ay sàmbaram al yaaxootu mooy yaaxoot wa abwaabuha ay buntam al jawaahiru ay wurus la wa taxataxaa nekk na seen ron anhaarun ay dex waxee ñoom dex yooyu tajri danañu daw fi jamihil jinaani ci mboolem ajana yi waxam aduhaata seen ban ñoom dex ya allu u mooy wurs lulu wa ashaddu te ñoo gën a tar bayaadan ci ak weex mina labani ci soow wa ahlaa te gën a neex minal xasali ci lem wa fiiha te nekk na ci moom nahrul kawsari dexuk kawsar ga waxyete moom xawdu nabiyina mooy déegub sunu yonante bi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey fiihaa nekk na ci daaru daarul qaraar nahru xaynit tasniimi dexuk bëtub tasniim wa fiihaa nekk na ci moom it ba tey nahru salsabiili dexuk salsabiil wa ashjaaruha te ay garabam ad durru wul su durru la wala yaqoot ak yaqoot wa fiiha nekk na ci moom ba tey naxru raxiiqi almaxtoom dexuk arraxiiq almaxtoom qaala taxaala xitaamuhoo busoom ba maanaam lañ ko saañe miskun gëtt la wala xitaamuhoo mujug naanam nga miskun gëtt la wa fi daalika ci loolu nag falyatanaafas na ëppalante ëppalante almutanaafisoona way ëppalante ña li misli haza ngir kem lii itam falyamal na dollee jëf alxaamiloona way jëf ña wa min waraa daalika nekk na ci gannaaw loolee minal anhaari ci ay dex maa loo xam ne laa yu sii du mën a takk xadadaha seenub lim jëlallaahu ndare yàlla taala kawe na ni yàlla liggéeye daarul xaraar mooy ay mooli wurus ak ay mooli xaalis suuf sa xanbar la ñax ma fay sax sanfaraan la pale yi ci biir nag ñu ngi ko liggéeye ci wurusu lu uloo sàmbar yi ci biir ñu defare leen yaaqoot bunt itam ñu defare leen wurus yu foor a foor mu am nag ay dex yu bare bari yoo xam ne ñooy dawdawaan dawaan ci ron pale yooyu le nga xam ne daarul xaraar dex yi ca nekk ñooy wal bay jàll ci ajana yi ci des fa nga xam ne fa la dex yi wale nag ca suuf ga dafa doon wurusu lu lu teyit dex yooyu di daw ak foofa ñuy bàyyikoo ca suuf sa ñoo gën a weex soow ñoo dàq lem man nga ceetu daale nee na dexu kawsar foofu la nekk te mooy déeg bi nga xam ne mooy naanu taraag bi nga xam ne moom la yàlla jagleel sunu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba foofu la dex gi ñu tuddee tasniim nekk ak dexu salsabil daalu xaraar mi ci ni ko indee fii moom ay garabam yépp wurusi buru lañu ak yaaxoot dex gi ñuy wax arraxiqul maxtoom bas mboroom naa xitaamuhu misk foofa la nekk mu ne loolu nag mooy jar kenn ku ne di ëppalanteeg moroomam bañ bañ moroom ëppale ko ci ngërëmul yàlla ndax bu ëllëg yàlla dugal ko ci xéwal yooyu le te lii war naa tax ku daa góorgóorlu dollee góorgóorlu boo weesoo dex yi am na yeneen yoo xam ne yàlla rek moo xam na lim ba toll wa fil yi nekk na ci xabaar xam rasulillahi bàyyi ko ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni àndoxoon naka moom xaala waxoon na ne laylata usriya ci guddi ga ñu rañaanee bii ak man ila sama jëm asamaan xoor xorida gaaraleef na xale yi ci man jamihul jinaani mboolem ajjana yi faraytu ma gis fiihaa ci ñoom arbaxata anhaarin yenti dex nahrun genn ga dex la min maa in bokk ci am ndox gayri aasinin moom du aji nax wa nahrun ak geneen dex min labanin gu bokk ci soow lam yataxayyar goog soppi guut taamuhu cafkaam la wa nahrun ak geneen dex min xamrin gu bokk ci sàngara ladat ngi aji neex li shaaribiin ñel way naan ña wa nahrun akuk dex min xasalin gu bokk ci lem mu safan gu dégg ñu segg na bi nee na bañ ma rañaanalee mu jëm asamaan dañ maa wan mboolem dex yi àjjana yi ma gis dex goo xam ne dexuk ndox la ndox mu set wecc sel lool amul koy naxal ak dexuk soow goo xam ne daal cafka la amul dara lu koy soppi lu koy naqaral neex lool rek ak dexuk sàngara gu neex a naan ak dexuk lem guñ mel ni bu ñu segg xaala annabiyu sallallahu alayhi wa qultu wax li jibrila ne ko yaa jibrilu min ayna tajiw ana fan lay dikke haadihi yi lay dex wa ila ayna ak ana jëm fan tadhabu la ñuy dem yonente bi ne mën laa jibril ne ko waaw dex yi moom fu ñu cosaanoo nga xam ne fan la ñuy tàmbalee wale ak bu ñu tàmbalee foofa fan lañuy daw jëm dex yi fan lañu soqi ko ak fan lañu daw jëm xaala wax jibril alayhi salaam ne ma yaa muhammadu tadhabu da dangay dem ilaa xawdil kawsari jëm ci déegub kawsar wa ama anaan daal man fala aduri duma xam min ay na ci fan te jiw la ñuy dikkee fas al laajal rabbaka sa boroom yuallimka mu xamal la wa te mu wan la zalika loolee maa laa jibril ne ko waaw dex yooyu fu ñu bàyyi ko ak fu ñu daw jëm mu ne ma yow de yow la yàlla jagleel déegub kawsara waaye man nag mënuma laa tontu ci dex yooyu fu ne fan la ñuy soqi ko ak buñ dawee jëm fan la ñuy jëm xanaa ngay ñaan sa boroom mu xamal la li nga bëgg a xam ci loolu wan la ko ba nga gis ko te daxaa mu ñaan rabbaxoo boromam fajaate dikk malakul malaaka fa sallama te mu nuyu ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa muhammad yow muhammad aw medd gëmmalal xay nay ko sa ñaari bët xaala nee na baxam maddutu ma gëmmal xay nay ya sama ñaari bët su ma xaal topp mu wax lii ñeel mooy ma iftax ubbil mooy xippil xay nay ko sa ñaari bët xaala nee na fa fataxtu ma ubbi saay bët maanaam ma xippi rek fa ida ana am til lu man daal xinda shajaratin maa ngi nekk fi ag garab xam nga nekk waroon bind da ko doon jéem a defaraat bëgg a taara waaye mel na ndegam ràññiluñu garab gi manees na ko bañ a taara xinda shajaratin rek wala ay tuma gis xubbatan ab xubba min durratin bu bokk ci wërusu duru baytaa buy aji weex wala xaate ñal na ko baabaani ñaari buntu min yaaxoot ci wërusu yaaxoot ah, ahmara buy aji xong min yaaxootin wa quflul baabayni te xombal ñaari bunt ya min dahabin mi ngi tukkee ci wurus xamra aw aji xong maanaam baatub dahab léeg-léeg def ko mu zakkar léeg def ko mu annas moo tax léeg-léeg ñu ne min dahabin ahmar léeg-léeg ñu ne min dahabin xamra walaw an na jamihama doonte nag mboolem li nga xam ne fi dunyaa nekk na ci àdduna minal jinni ci ay jinne wala in si ak nit wadihon tegeef na leen xalaa tilkal xubba ci kaw boobee xubba lakaanu kon ñu nekk mis la taayirin di mel ni aw njanaaw rek jaalis muy aji tong muy aji toog aw xajabalin ci kaw aw docc dina jibril ne laajal sa borom ndax mu xamal la li nga bëgg xam wan la ko yonent bi ne damaa ñaan saa borom am malaaka dikk daal muy nuyu ne ma muhammad gëmmal ma daal di gëmm mu ne ma xippil ma daal di xippi naka ma xippi rek yem ci garab goo xam ne daal jaaxal na ma ma gis benn xubba boo xam ne dañ koy defare ci wurus turu weex tàll xubba bi amee ñaari bunt yoo xam ñu ngi ko liggéeyee ci wurus yaaxoot wu xong xomb li nga xam ne mooy tëj ñaari bunt ñooñu ba tey bàyyi ko ci wurus wu xong mu ne nag ku jëloon ñu nekk ci àdduna ci nit ak jinne teg leen ci kaw xubba boobee day mel ne rek benn janaaw bu tongoon ci kaw aw doj ndax nag faraaytu ma gis haadihi al anhaara yi lay al arbaxa ya di yent tajri ñuy daw min taxti haadihi l xubbati ci ron bile xubba xubba boobu nga xam ne dafa rëy rëy ba nga xam ne ku boole woon nit ak jinne teg leen ca kaw day mel ni rek wenn janaaw naa woon tong ci kaw aw doj xam nga dojul lëm moom bu ci benn ginnaaw tongee du doon dara mën nga koo bañ a séen sax ndax tuuti nga muy tuuti mu ne nag xoba bi dafa réy réy ba nga xam ne ku boole woon nit ak jinni teg leen ca kaw xoba ba it day mel ni rek nga xool aw doj séen ca benn njanaaw nee ma gis nag yeenti dex yee ma weesu woon yépp ñuy daw nag bàyyi ko ci ronu xoba boobule nga xam ne ko lam doon laaj jibril naa ko dex yi ana fan lañuy soqi ko ak fan lañ jëm kon léegi xam na ko ndax nee na gis naa yéenti dex yépp daal ña ngay soqikoo ca ron xuba boobee di wal nag di dem falamma arattu ba ma bëggee an arjiha ma dellu xaala wax lii ñeel ma almalaku malaaka ma li ma ana lu tax laata duxulu doo dugg fil xubbati ci xubba bi xultuma wax laxoo ñeel ko wa kay fa adduxulu naka laay dugge waxalaa baabiha te nekk na ci buntam ba xuful xomb fa xaala mu wax lii ñeel ma iftax ubbil xomb li xultu ma wax la xoo ko kay fa aftaxuhoo naka laa koy ubbee moom xomb li walay sëli te déet mooy ñeel miftaaxuñ ceebi xaala wax lii ñeel ma ne fi yeddika nekk na ci sa loxo miftaaxuhoo ab ceebeem xultu ma wax la xoo ko ay na miftaaxuhoo ana ceebeem ba xaala mu ne miftaaxuhoo ceebeem mooy bismillahi irrahmani irrahim xaala nee na falamma danawtu ba ma jegee minal xufli ca xomb la waxultu te ma wax bismillahi irrahmani irrahim iftatax ubbiku na alxuflu xomb la wa daxaltu te ma tàbbi alxubbata biir xubba ba xaala wax lii ñeel ma dalikal malaku moomee malaaka hal ra'ayta ndax yaa ngi gis yaa muhammad yow muhammad xultu ma ne ko naxam waaw xaala mu waxaat di ñeel ma dama intaliq demaatal taaniyen cib ñaareel ilaa amaamika jëm ci sa një fala man talaqtu ba ma demaatee ra'aytu gis naa maktooban lu ñu bind xalaa arbaxati arkaanil xubbati ci ñeenti koñi xuba bi ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim wara aytu te ma gis naxaral maa dexuk ndox ga yaxruju muy génne min miimi bismi ci miimuk bismi wa naxaral labani ma gis dexuk soow ga yaxruju muy génne min haa illaahi ci haa gi nekk ci allah wa nahral xamri dexuk sàngara ga ma gis ko moom it yaxruju muy génne min miimi rahmaani ci miim gi nekk ci arrahmaan wa nahral xasali dexuk lem nga itam ma gis ko yaxruju muy génne min miimi raxiimi ci miim gi nekk ci arraxiim faxalimtuma xam ne ann asla haadihi l anhaari naka cosaanal yi le dex al arbaxat ya di yent minal basmalati ñi ngi tukkee ci bismillahi irrahmani wax allahu yàlla taxalaa kawe na ne ma yaa muhammad yow muhammad man yadkuru nii ku may tudd bi haadihil asmaa ci yi lay tur min ummatika ci sa xeet wi bi qalbin ci xol xaalisin bi aji sell waxiya te ñoom xawluka mooy sa wax bismillahi rrahmani rrahim ma nàndal ko min haadihi l anhaari ci lay dex al arbaxati ya di yent ngën ji mbindéef ba ma gisee nag yeenti dex yooyu ñuy wal di soqikoo ci xubba bu réy boobee damaa dem bay wàññiku nag malaaka mi ne ma waaw lu tee nga dugg ci biir xubba bi ma ne ko ah xubba bi kat bunt bi dañ koo xombe malaaka mi ne ma ubbil xomb li ma ne ko ah yoruma caabi di nu ma koy ubbee mu ne ma ah yi dañ nga ko yëgut waaye mel na ni yaa ngeeg caabi bi ndax soo waxee bismillahi rahmaani rahim rek xombal daal ubbiku mu ne nag naka ma jege xombali wax bismillahi rahmaani rahim rek xombala daal ubbiku ma dugg ca biir xuba ba malaaka mi ne ma yaa ngi gisa ma ne ko waaw maa ngi gis kay mu ne ma demale dem ba ca sa kanam ku baax ki ne ma dema dem ba ci saa ma gis ñu bind bismillahi rahmaani rahim ci ñeenti koñi xubba bi ba ma séenee nag bismillahi arrahmaani rahim laa gis ne dexuk ndox ga ma ngay balle ca miim gi ci bis dexuk soow ga ma ngay balle ci xaa gi ci allah ma gis na itam dexuk sàngara ga ma ngay miim gi ci arrahman ma gis na it dexuk lem ga ma ngay balle ca miim ga ca arrahim ku baax ki ne ma daldi xam nag ne yeenti dex yépp kat ñu ngi bale rekk ci bismillahi rahmaani rahim nee na saa boroom ne ma yow muhammad sa xeet wi day ku ma ci tudd ci tur yii ànd xol bu sell faaw ma nàndal ko ci yeenti dex yii tur yi sell yi nag mooy boo nee bismillahi rahmaani rahim am na allah ak arrahman ak arrahim lu ci nekk pour yàlla la mu nekkoon nag sa xeet yi ku ma ci tudd di wax bismillahi rahmaani rahim ci xol bu sell rek danaa ko nàndal ci yeenti dex yooyu nga xam ne ñu ngi soqikoo ci bismillahi rahmaani rahim faslun li ab dog la fi ashjaaril jannati ci garabi àjjana qaala kaabul ahbaar radiallahu anhu sa'altu laajoon naa rasulallah yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xan jannati walis garabi àjjana qaala mu ne ma laa basu du axzaanuha seeni bànqaas wala tasqutu te du rot awraaquha seeni xob wala yaf naa te du jeex rutabuha seen bënëx seen meññal mu tooy maanaam wa inna akbara ashjaaril jannati naka gën jaare yi garabi àjjana shajaratu tuuba mooy garabuk tuuba asluha cosaanam min durratin mi ngi bàyyikoo ci wurusu durru wa axzaanuha ay caram min sabarjatin tukkee ci sabarjat wa awraaquha ay xobam min sundusin bàyyi ko ci sundus walaysa fil jannati dir muy nekk ci àjjana xurfatun ab néeg muy ab sàmbar wala xubbatun du caageenu ab xubba fi mawaadihiha ci ay bérébam illaa wa fiiha ndare mu nekk ca moom xusun ab car yu zillu boobu dana keral xale xaa ca moom min xaa ci garab googule wa fiiha nekk na ci garabuk tuubaa gi minat timaari ci ay meññet maa lépp loo xam ne yi dana ko foytu ba dana ko bëgg ka taamu al anfusu bakkan ya wata lazzu te koy bànneexoo al ayunu bët ya wa naziruha ndendam fi zalika ci loolee fi duniyaa ci àdduna ashamsu mooy jant bi fa inna aslaha naka cosaanam fi samaay nekk na ci asamaan waxad yasilu te baraana bu àggee taw uhaa leeram nga fi kulli makaanin ci bépp béréb fil ard ci suuf ku ñuy wax kaabul ahbar ne dama laajoon yonante bi sallallahu alayhi wa garab garabi àjjana nu ñu demee mu ne ma ñoom day ay garab lañ yoo xam ne seeni car du wow mukk seeni xob du mukk seen meññet mu tooy ma du mukk du mukk mooy du jeex mukk du dem ba duñu dem ba yàgg ñu ñàkk meññet ne mu ne ma nag garab ga gën a ci garab yi àjjana mooy garabu tuubaa cosaan la muy dàtt ba wurusu duru la ay caram wurusu zabarjat la ay xobam dañ ko defare ci mbalaani àjjana te ne boo gis ci àjjana baa xoba boo séen ci àjjana rek ñàkkul car bu bokk ci garabu tuubaa googee tiim ko di ko keral li nga xam ne itam moo ci nekk ci xeeti meññet ci garab googu mën ngaa gàttal ne lépp lu bakkan di bëgg ko taamu ak lépp lu bët di xool muy rafet ci moom rek ci xeeti meññet nekk na ci garab googu bu mënees wax lépp lépp sax mu ne sax mënees na ko misaale ni jant bi mel ci àdduna nga xam ne jant bi fépp la leeram gi di àgg ba tey garabug tuubaa gi moom it noonu la mel fépp ci àjjana lay àgg qaala wax na aliyallahu anhu tabata sax na fii baadil axbaar yi ci lenn ci xibaar yi anna ashjaaral jannati naka garabi àjjana min fiddatin tukkee na ci xaalis wa awraaquha ay xobam baaduha lenn seen min fiddatin tukkee na ci xaalis wa baaduha lenn seen min dahabin ci wurus wa ashjaaru dunya garabi àdduna asluha seen cosaan maanaam seen dat fil ardi nekk na ci suuf wa farxuha seen banqaas fil xawaay nekk na ci jaww ji li ànnaha ngir naka àdduna moom daaru fanaayin kërug jeex la walaysa kadhalika diir li mel noonee nag ashjaarul jannati garabi ajana fa inna aslaha naka seen dat fil xawaay nekk na ci jaww ji wa farxuhaa seen bangaas fil ardi nekk na ci suuf kama qaala ki yàlla waxe ne xutoofuhaa seen meññet daaniyatun aji jege la ay tamaruha seen meññet qaribun aji jege la wa turaabu ardiha suufus seen suuf miskun misk la gëtt la wa xambarun ak xambar wa kaafuurun ak kaafuur wa anhaaruha ay dexam moom àjjana maa un ndox la wala banun ak soow wa xasalun ak lem wa xamrun ak sàngara wa ida xabba ndem upp na arriifu ngelaw la yadribu dana dóor alwaraxu xob ya te baaduhoo lennam kat mooy dóor baadan lenn fa yusmahu te dee fi dégge minhu ca dóorante xob ya sawtun kàddu maa sumi goog masifu te dégg misluhoo gu mel ne moom fil xusni cib neexaay mooy alxusnu bi firi rafetaay waaye mooy kàddu moom li ci ëpp neex lañ cey wax al imaamu xali yàlla na ko yàlla doole gërëm nee nañ waxoon na ne garabi àjjana day jëmmi dat yi xaalis la xob ya leen lay xaalis leen lay wurus mu ne nag garab yi ci àjjana dañoo wuuteeg garab yi fii ci àdduna ndax garab yi àdduna moom dàtt bi mooy sax fi suuf car ya jëm ca kaw mooy nag bu dee ci garab yi àjjana yi moom dàtt yi day féete kaw car yi féete suuf nga xam ne meññet mi day jege lool foo bëgg a watt daal di wat mu ne it garab bi àjjana yi béréb yu sax misk la ak xambar ak kaafuur maanaam yu ne xeet yooyu ne fa la garab bi àjjana yi sax muy seen saxuwaay mu ne dex yi àjjana itam mooy rek yàlla waxal boppam ci alquran dexuk ndox mu sell dexuk soow dexuk lem